fii ñépp nanu manko góor jigéen mag ñeeg ndaw ñi nanu manko parti opposition nanu diisoo sunu Sénégal gaal gi warul suux nanu manko réewum Sénégal réew mi ñoo ko askan wi mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal ci kolu beeg ànd beeg Walf FM point 0 ngeen Euh, programme mu leeru jamono am mbégte fas yéene fegook yéen 11h midi ñuy waxtaanee tolluwaay réew meek actualité bi jaajëfal Mouhamed ba mi ne ci euh, machine bi Rahim Lo ne ci digital bi ñu am mbégte fegook euh, Seydina Omar Ba ci studio bi fas yéene dalal suñu gan Gora Xuma ñu fas yéene waxtaanee li ne këtt ne jonn di wàllu transport ak i tamit dogal yi nga xamante moo tukkee ci ndajeb conseil interministériel bu ñu doon amal démb ca jam lu ëpp ñaar dogal. tukkee ca euh, naka lañ ko gisee ndax chauffeur si gis nañ ci seen boppam déet ndax dogal yooyee mun naa jur saafara ëllëg ba accident yi mun fee jaar jóge fii wala boog wàññeeku euh, Seydina Omar Ba maa ngi lay nuyu. maa lay fay Abdoulaye. jërëjëf. maa lay fay di la nuyu. Mhm. di nuyu bu baax a baax Mouhamed Khalib Ba mi farewat ci xarale gi. Mhm. di nuyu si bu baax a baax suñu naattango suñu xarit Rahim Lo. Mhm. Euh, ci digital bi waaye tamit ñu ngi sant di gërëm bu baax a baax Euh, mi nga xam ne nii jamono ji xam naa ne xat na lool le fait que vraiment mu bàyyi léppam euh, ñëw toog fii fas yéene ñu gunge ci émission bii di sàppali di nuyu mbokk yi nga xam ne ñu topp jamono ji ci euh, tel ci maanaam ci tali bi mm-hmm. muy chauffeur yi ñu nekk ci marché yi mm-hmm. ñi nekk ci car rapide yi kaaru njëga njaay yi ba si bus tata yi ko daal ñu ngi nuyu ñëpp Ablaye jërëjëf Seydina Omar Ba ñu ngi lay jaajëfal dalal suñu gan Gora Khouma kilifa gi ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay fay bopp di monsieur Ba di nuyu technicien yeeg digital kiy gérer digital mhm, bi. Mhm. di nuyu kër gi yëpp nag. jërëjëf góor ak jigéen. Mhm. ñu bàyyi xel Walf. di nuyu permis de conduire di nuyu carte di ñaan jàmm yàlla doolu ñuy xéewal ci barka bi maam li maamu lay maati. amiin naka URSS naka union bi. union des routiers du Sénégal synthèse. ñu ngi leen di mi ngi mi ngi dox. waaw union bi moom c' est toutes les catégories. tout à fait toutes seen ci transport. jërëjëf euh, nga yàgg ci lool ci transport ndax ku ne taarixu Sénégal ci wàllu wàllub euh, dem ak dikk woto mënoo dem ba jeexal te tuddoo ci euh, Gora Khouma nga yàgg ci béy sawar et puis am mbégte ci disponibilité bi ak saay su ne wal fajri bu ñu yittewoo taataan ci yow xalaat ak xam-xam nga yow yegg si ci bërëb bi loola yi tamit ñu ngi la ci jaajëfal ndax jamono xat na yitte yeeg yu tey jaajëfal Gora Khouma suñu gan xam naa tey actualité bi ñoo ko gisandoo. accident gi am ca yoonu Kaffrine fa tolloog 6 kilos lu tollu ci fanweeri doomu aadama ak juróom-ñeent ñàkk ca seen bakkan lu toll ci téeméer jëlee ci ay gaañu gaañu am na ci ñooñee sax fukk yoo xamante ne ba léegi ña nga soowee taas ñaari woto yu mbëkkante ñaari bus ba joge woon uh, fi nga xamante ne mooy Ndakaaru doon dem ca Vélingara ba ca des uh, Tamba bawo bawoo doon jëm si Ndakaaru ñu mbëkkante ndax uh, panneau bu toj jur jéeye googu nga xamante ne tey Sénégal a ngi ci ñetti fañu dëj ci jamono joo xamante ne nguur gi amal na ci pencoo mu yaatu doon waxtaanee nees mun a def ngir accident yi mun fee wàññeeku war a bëgg war fee mun a jógee ci ndajeb conseil interministère googu nga xamante ne amal nañ ko démb ay dogal nag tukkee ca bari ca lool euh, dogal jëm ci euh, kuréel gu bees gañ fi samp ngir fexe ba askan wi mun a sàmmonte code de la route beneen dogal jëm ci wàllub euh, woto yi woto yi daw interurbain gox ak gox am na app gañ leen jox léegi lu ko dalee vingt deux heures ba cinq heures du matin dootuñ leen may waxuma beneen dogal jëm ci interurbain yooyu le euh, bu daw ba weesu fukki at dañ la war a càmbaraat xoolaat euh, bokk na ci tamit ci wàllu bus yeeg euh, versa yooyu ne ci biir day dañ porte bagage yi tamit dogal la goo xamante ne tukkee na ci ndaje ma jëm ci itamit pano yi ña ko fi dugal ci réew mi pano yooyee nañ lay demee ba chauffeur si di ko jëfandikoo ba musiba di ca tab bi dogal yi mot nañu ñaar fukk ak ñett waaye lii lañu mun mën a teqagum ngir fas yéene ci waxtaan ak yeneen ak yeneen Seydina Omar Ba ma bàyyi la nga dalal gan gi. waaw jërëjëf Abdoulaye ci euh, le fait que war nga tënk. li nga xam ne fa fas yéene waxtaanee tey am na solo rafet na. Euh, kon Gora ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay nuyu bu baax a baax wax dëgg yàlla di am mbégte dalal la fii. Euh, Gora démb dafa am ndaje mu am solo. moo xam ne nii premier ministre Amadou Ba da ko organisé woon mu nekk ab conseil interministériel yéen ngay acteur di yëngatu ci wàllu transport ngeen fekkee ko ci ndaje mi am na ci lu ñaar fukki mesure ak ñaar yoo xam ne da cee génnee Euh, li tax nag mu génn mooy accident bi nga xam ne nemeeku nañ ko ki fan yi ñu génn fële ca Kaffrine ba lu ci tolloog fanweeri doomu aadama ak juróom-ñeent ñàkk ci seen bakkan mm-hmm. mesure yooyu leen ndax gis ngeen seen bopp waaw ginnaaw bu ñu jaalee mm-hmm. askan Sénégal ndax li dal dalul benn famille mm-hmm. Sénégal gépp la dal waaw ñuy ñaan yàlla suñ borom bi mi mën a texeel doomu adama yàlla euh, yal yàlla texeel ñi am ay laago ay gaañu gaañu yàlla saafara leen ci barkab Limaamulaay maxti di jaajëfal nag képp kuy responsable te teewoon ca accident ba mm-hmm. ngir xool na demee ak yu mel noonu man de déw moo sama régional moo fa nekkoon mais gërëm nañ képp koo xam ne kii yaa ngi yoroon ndomb tànk ci transport mm-hmm. déplacé woon dem fa kooku amee lañ ko njëkkal di gërëm président de la république aussi mi fi toogal Sénégal yëpp moom tamit dem ak gouvernement ministre transport ak ñëpp ñu mu war a àndal. kon nekk na loo xam ne lii ala loo xam ne lii réew mi ko moom kon réew mi bu ko bokk. Euh, loola nag bu taxee nag euh, ñu jël ay mesures euh, annoncé nañu ne dina am mesures yu génn ñun ñëpp ñu yàqamte xam mesures yi lan la. waaw damay leeral ne bi ñuy démb ci ci réunion ba te réunion ba aussi oo nañ fa acteurs yëpp acteur bu demulee rek xamal ne yebal nga sa représentant. kon foofu dafa mate fépp. Euh, pour li ñuy def ñun ñëpp fekk ko waaye bi ñu ñëwee gis nañu ñaari présentation yu fa am. Hmm. benn bu njëkk bi euh, directeur des trans directeur général des transports hmm. wal Waljooji Ndiaye def na benn présentation. directeur ANASER Cheikh Omar ngay def na benn présentation mais présentation bi gis nañ ne waaw dis na. Hmm. waaye taxul nag muy man muy sama morom ku ne ànduma ci. ndax contexte bi accident bi dafa jaral tax nit ki nangu lu mënul sax nangu ko ngir fi réew mi toll. Mhm. comme gouvernement natt na ne lii bu ñu ko defee accident jeex. loo xam ne boo ko defee accident jeex nag ñun ñëpp a ci war a ànd. Mhm. mais leneen la cay ñuul mooy premier bi muy liir décision bu gouvernement bi jël. Mhm. mu war a ton tondoog ñaar fukk ak ñaar ci ay poñ. gis nañ mu dugal ci benn poñ boo xam ne bii. ndax bi ñu defee ñaari présentation yi dañu ubbi débat yi dañu ubbi débat yi foofu bi ñu defee ñaari présentation yi pare bi ñu clôturé débat yi ci la premier ministre soog a réagir mais bu fekkoon ne premier ministre dafa réagiroon bala ñoo ñëw ci plateau bi na ànduñu ci ci kanamam lañ koy wax ànduñu ci dafa sërëxal bu ci bokkutoon mais dafa dugal dafa présentation yi la ñu tegal ñu xool ko bon gré malgré dix ak dix août ñu ne waaw mais bi muy def lecture vingt deux points man de laa wax am na poñ boo xam ne bi man ànduma ci mu di Dakar gii rek laa wax ku fi bëgg a passé visite technique da ngay dugg ci réseau bi du rendez-vous mu jafe la lool. Mhm. nga bëgg a passé mu jafe la lool ndax xat ndax Dakar dafa yaatu. Mhm. kon bu gouvernement bi nee damay tëj treize régions yëpp bu fa kenn passé ti hmm? yéen ñëpp ñëw leen Dakar foofu de ànduma ci. xam nga tax. Hmm. ça fait onze ans ñuy wax gouvernement bi yokk leen. centre yi. ndax mais daf leen ko yombal aussi parce que dafa ne ci ñetti weer yi nañu may uniquement transport en commun yi ñoom ñuy def visite technique. dafa mënul nekk dama ne liy nekk ci. ah daf leen ko yombalal quoi kon non yombut. parce que bu ñu nee l' ensemble des véhicules transport mën nañ ñëw Dakar def ci kii. dañuy demander à ne loolu moo dama ne loolu moo jaaduwut. Mm-hmm, bari xam nga dafa ne oto buy daw ci côté tali da ngaa war amul oto bu ñu war ne bii na nga xaar waa kii xaar moom dafa accident moom. insécurité la waaye. dama nit buy natt da ngay natt lu jub. particulier ak ñëpp a war a passé visite technique ñëpp a war a passé visite technique. moo tax ma ne treize régions yi nañ ko tëj ñëpp ñëw Dakar ak li nekkoon dakaar dama ne loolu moom laa àndut. xanaa kon rang bi tënkee lay commencé. lii nekk Dakar donc dañuy indi la jël xam nga ñun li ñu wax mooy 11 ans ñu naan multiplier leen centre yi mais dégguñu mu de faale wuñu sax mais pourtant li leen gën a nag muy fi ñuy peesee camions yi. Hmm. site de pesage bi. 26 hmm. am na ci Sénégal. tali yaa gudd de. waa ci ci yoon yi. fépp ci Sénégal laa wax. ruq bu nekk am na. parce que day dugal xaalis. Hmm. day dugal am na. waaw bii nga xam ne moom mooy xettali bakkan ñu 11 ans yokk ko ñu bañ ba jiyee bii am na ñu soog a jóg mais fa doon jëlee xaalis. 26 am na ci Sénégal te centre bii moderne bi moo jiitu yi. moo ko jiitu. mais def nañ ci 26 ci ginnaawam. waaw moo tax ñu ne nañ accélérer processus bi ba kenn indi ko jënd indi ko for. Hmm. benn yoon lay doon benn yoon nga koy ñàkk. benn yoon nga koy am benn yoon nga koy ñàkk. waaw nañ ko yokk rapidement. région yi am centre moderne. ñu loolu lañ wax. Euh, benn bu nekk euh, gox ga fa nekk ak woto ya fa ne. waaw euh, mun dafa. am centre xam nga région bu hmm. nekk da ngaa am subdivision de transports. Hmm. fa ñuy jàngale théorie di fa jàngale pratique. fa la ñuy joxe visit technique. mais fa la ñu war a defee de formation. tàggataat chauffeur si. mais fa lañ aussi war a def centre moderne bi. léegi nag ñoom gouvernement bi jug na nag léegi ne ah kay dañuy daal di yokk jéego yi. pour processus bi gaaw pour que région yëpp am centre moderne. d' accord nañ ca. Mhm. d' accord nañ ca mhm. mais dañ ne kon nag nañu continuer système bi fi nekkoon. région bu nekk oto bu nekk yem ci sa région te accéléré kii bi balaa 2 mois 3 mois région yëpp am ko ñu noppalu. mais Kanta Cheikh Omar ok Seydina Omar. Mhm. bu ma ci mënee dara ak bu ma ci mënu dara Sénégal gépp dinañ dinañ ñëwaat àndat ak man ci lii bu ñu bëggee ne treize régions yi oto yi fa nekk yëpp nañ arrêté lañ doon def te ñëw dakaar gii ma ne ku ci àndul ak man tey bi te bu subaa di nga ci ànd ak man ndax dinga nga bëgg a xëy doo am foo xëy mm-hmm. Dakar gii di bëgg a xëy doo dem kon nag kenn ku nekk nekkoon ci la nga nekk te ñu yokk jéego yi ñu fexe ba région bu nekk am centre moderne ndax centre moderne lañ jàpp ne moom mën a xool li mu war a xool. kon kay loolu moom moo doon nekk priorité. ci ñaar fukki ak ñaar yëpp boobu rek nga ci àndu. ak yoo xam ne yi xam nga mesure yi. Hmm. dafa am yoo xam ne la liste avec hmm. moi. Hmm. mais am na yoo xam ne yi waaw bu la neexee am na mesure yoo ne dañ ne mën nañ cee waxtaan ba ci kanam. am na mesure yoo xam ne dañ ne léegi la. daar daar lee daar daar. mooy voyage guddi gi. waaw voyage guddi daar daar xam nga point yi bu ci oyof amuñ bu jugee amul. déedéet. diis na gànn de. gànn mais xam nga ñu koy. mais teewul nangu ngeen ko. waaw non xam nga bu fekkoon dañ kaa génne woon te dara xewut ak ñu ci bañ luñ ci lu ak ñuy bari lu ñu ci wax mais lii lii xew Kaffrine. Euh, cause bi ngeen gis. lii xew Kaffrine kenn ku nekk yenu say loxo di jooy. Hmm. nit ñi may naa taxaw jàkkaarloog askan woowu di jooy naa ñun dakuruñ ko. Hmm. mën naa kooku man de du ma ci bokk mhm. ak lu miti miti ci man du ma ko def mais buñ ko defoon nag ci yeneen moment yoo xam ne du woon yii mhm. ñun di lañ wax ne li ñii lañ d'accord ak lii lañ d'accord xam nga xam nga góor li ma xaw a jaaxal ci mbir yi mooy que euh, euh, a a euh, même bu fekkee ah, bien mhm. koy metti lu waaye mesure yi da ngeen nangu rek état bi jël ko dal di koy dóor yéen ci seen i doom déedéet non c'est que mesure yi lu muy bare bare bare bare gisoo état jël benn mesure jëmale ko ci ay ci ay ci ay ci ay ci ay nitam moom. waaw non non non maanaam ci police. déedéet déedéet ci gendarmerie. ci permis de conduire ñi koy joxe. Mm-hmm. visite technique bi corruption bi ci am. déggoo état bi jël si benn matukaay. non non non daal da bàyyi état bi jël matukaay déedéet non non non. teg ko ci sa force. maanaam soppi non non non d'accord ma foofu. Mm. da ngay lire 22 yi ba pare. 22 mm. yëpp lire naa ko baax a baax. waaw non xam kon boo nee 22 yëpp am na am na point yoo xam ne bokkuñu ci ñun. Mm. bokkuñu ci parce que am na matuwaay yu jëm ci système bi ñuy joxe permis am na matuwaay yu ñu jëm ci contrôle routier bañ ne léegi sax diggante nit ak nit dootu ko jox xaalis maanaam taggal ma russi dama la jox sama 6000 ba sama 3000. waaw dootuma la ko jox ou bien da ngay da nga bëgg amatul dañ ne système la. sa portable ngay jël la nga war a fay nga ko nga dem. mais loolu Fousa xam na ne instant bi est-ce que matukaay bi. est que ñëpp am nañu est-ce que am nañu matukaay bi est-ce que ñëpp am nañu portable waaw yow dama ne lu tax amuñu dama ne. Mm-hmm. état lu mu bëgg def da kay def lu mu bëggul def du ko def. Mm-hmm. ñun ne xam nga fan la ñuy war a suñu combat fan la nekk. Hmm. lii mu wax lépp loo xam ne ñun ñoo ko moom mu appliqué ko. lu mu moom mu bàyyi ko foofu la ñuy yuuxoo. mais jamono bii laa la wax xamuñu lu muy def ak lu mu def bu ñu taxawee fii sa studio bu fu toogoon na maa bañ maa bañ yow mii yaa ma jëkk na ma askan wi yitteelu la. Hmm. yow mii hmm. en tant que presse yaa bi jëkk na ma yow accident bi yitteelu la safu la. moo tax dama ne lépp looy mesure yoo xam ne dafa jëm ci ñun état jug taxawal léegi réglé ko. et mesure boo xam ne dafa jëm ci moom. mu bañ kaa mu bañ bu ko regee foofu la Sénégal gi ñu déggee te bu ko regee population bi la ñuy jox dëgg góor a ci mesure yooyu euh, gis nañu euh, woto yi doon daw xaaju guddi euh, xaaju guddi sax la accident googee amee ca yoonu Kaffrine dogal rot na jëm ci xool anam ya ñuy dawee appal leen itamit du ko dalee vingt deux heures ba cinq heures du matin yooyu dogal itamit ndax ànd ngeen ci ndax la lu mun a nekk la wala boog du ngeen ciy jéem xam nga ñun transporté wuñ suñu bopp mhm. population bi la ñuy transporté. nit ñooy jóg waxtu woowu. dama ne. Hmm. nit ñi ci boppam. Hmm. ñoo naa kat lii gouvernement bi doxal ci ñu doon ñuy dox dox guddi gi ñun ànd nañ ci ou li gouvernement bi def ànduñu ci mais ñun transporté wu suñu population bi la ñuy transfert transporté. Hmm. waaw population bu d'accordee duñ daw guddi ñun luñ ci mën mais population bu ñu nee du dañuy dem guddi. ñoom ñooy def déclaration ànd ak ñun ci loola. mais ku loo yow da leen transporté doo leen déglu. dañ leen déglu. mais duñ leen obligé na leen dañ leen transporter force. mais ci wàllu xam-xam est-ce que yaakaar nga ne transport guddi jaadu na. ah, ah kay ah kay bu doon accident bi yàgg nañoo wax transport guddi ñu ne daf day continuer mais xam nga bu fekkee ne nag accident li ci ëpp yi gën a garaaw yëpp guddi la. guddi la yow mi doon bañ loola da ngay am kersa sax léegi continuer na dama koy bañ. Mm-hmm. et que doo am looy lay. Hmm. bi ci des ñun ñi dañoo am sikk. chauffeur c'est que transporteur xam nga dafa ñoo am sikk. Mm-hmm. bu gouvernement bi envisagé na transport guddi dañ koy arrêté ñu syndicat boobu ku mel ni man na du fi amee mhm. ñun dañ daw guddi ndax yéen ay katkat nga réer nga daw guddi kon ñay daw ci guddi ñoo ñu waroon sóoraale di def lu jub. Mhm. jàppal leen si. waaw di def lu jub bu ko regee suñ bañ nga day continuer waaye nag bu fekkee ne ñun day syndicat góor xam ne dana daw guddi kenn mu ko fay tere. te jëye yëpp di guddi man bu yàggee damay noppi. puisque damay su perdre le mot puisque mënutuma défendre dara ñun ñoo war a dimbali suñu bopp bi ñëwee ci mhm. ko ko ñu war a jàppale njaboot gi te du yoon nag aussi poste non déglu rek dama dafa am poste contrôle ak poste sécurité loolu wax naa ko démb ne déglu rek non non non non la république wax naa ko premier jàkkaarloo nee ko président de la mu def décret mhm. appliqué wu ko mhm. appliqué ko yow ministre de l'intérieur li nga wax information bi la ci wax dañoo juum buñ nee bañ taxawalee poste euh, groupe yi gis na drogue beeg yëpp a ngi jàll. Mm-hmm. erreur nga wax. Mm-hmm. amul amul fenn ci Sénégal fu poste mix am amul. Mm-hmm. trois postes contrôlés lañ wax. mais kenn ku nekk dangay taxaw fa nga taxaw. li ñu waxoon ak président mooy dañuy boole koor yépp ci benn place. mburu mu amee ba indi ko lekk. man bu ma xamee ne bu ma ñëwee ñëpp amee xool. bu ma xamee. Seydina Omar xaw ma bopp. waay kon dinaa jag mais bu fekkee da ngeen a beru yéen kii nga nekk fii kii nekk fii bu ma jubóowul ak yow jubóog kii moo tax ñu ne nañ ko président daal ko bind noonu ne gouverneur bu nekk na nga dajale. njabootu force ya fa nekk. ci benn place boo oto bi ñëwee ngeen saytu ko. maanaam lu ne fàng. loolu lañ d'accord ñun. Hmm. te loolu ba léegi amul. mais xam nga la mooy son problème. waaw mooy que yéen yéen cest à yéen euh, les les surtout les syndicalistes. Hmm. waaw yéen chaque jour bu leen déggee ngeen di casse da ngeen di casse rek pour intérêt chauffeur si mais doo leen xeex mukk pour intérêt le client parce que imaginez góor xuma gis ab bus. Hmm. boo xam ne lay koy war ne buy génn maanaam buy wàcc si. 52 hmm. places lay wàccee. waay ngay bàyyi transporteur bi transformer bus bi surcharge ko. fo dama ne am na côté am na côté boo xam ne. doo leen ci wax benn. ok ah, non non sax bugguma nga bugguma nga tuumaal. waa service des mines. déet déglu déglu non non waxuma man tudd ma service des mines yaa ko tudd man tudd ma ko. mais yéen yéen en tant que ah. syndicaliste boo leen gisee du dul yoon mais da ngeen ko war a tàppe. waaw dama ne du yoon. dama ne dafa am lu waral loola. Mm-hmm. lu ko sookee. waaw kay mm-hmm. bu fekkee ne bus bi dafay ñëw amul porte bagage amul Versailles. waree cinq personnes. Mm-hmm. yow Cheikh Omar yow Seydina Omar nga moom ko. nga ñëw ci bopp mii. mu defal la catégorie soixante places. Hmm? ci quarante cinq. waaw nga dem ci assureur bi mu ne la soixante nga may fay soixante places waaw kon doo modifier sa oto sa soixante places. Hmm, kay kon moo ko def catégorie bi lañ ko def. Hmm. defuñu 45 de 60 ko def. 60 assureur bi ne man du ma jël 45 60 lay jël ndax moo nekk ci catégorie bi. waaw man mi moom oto bi du ma ko modifier ba mu sonn place. kañ ne oto bi parce que porte bagage du dox ma ñëw di passé visite technique indiwaale sama porte bagage ñu jox ma visite technique kan moo ko def dama ne ba ñu sonnee taxaw nañu nee na ñëpp lañ watu transport en commun yëpp lañ watu nel <laughs> d'accord nañ ci coiffeur bi ñëw na mi ngi wat mi ngi wat mais loolu amuloon mm-hmm. assureur yi ci boppam mm-hmm. wax nañ leen na ngeen préparé wu mënuma di fay catégorie soixante place ñu dindi samay versailles ma continuer di fay soixante place mënul nekk kon na gouvernement wax ak assureurs yi na leen nekk nañ modifié léegi lan moo tax kon di nangu responsabilité bi te joxoo ñe leen ñuy def loolu de yow da fekk démb lañ doon wax dañ ko ne mën lay dama ne waaw fay ña fa waaw loolu lépp wax nañ ko fa dama ne mbooloo fi nekkoon te lañ ñu borom ful rek a fi nekkoon mm. ña doon wax mm. maa ci gën a ñàkk fayda mais ña fa nekkoon ñëpp am waaw non dama ne foofu foofa bu dee politicien la bu dee politicien man doo nga fay politicien bu dee ñàkk fayda man doo nga fa ñàkk fayda hmm. mais ñi ma fa hmm. hmm. bu fa amee ko waxu politique waxu ñàkk fayda man mii la dama koy nangoo noonu man mii la mais gars yi moom waxu syndicat la ñuy wax waaw waxu syndicat la ñuy waaw dama ne moo tax ñu gouvernement bi day oto buy ñëw léegi amul modification tey fi nekkoon tamit day deñ waaw nee nañu Versailles beeg ah, porte bagage xam nga loolu mooy tekki ne hmm. catégorie bi tamit dañ koy modifié waaw day delluwaat fa mu ne woon ah, kay léegi nag man oto boo xam ne 10 places la hmm. assurance 10 places la oto boo xam ne 60 places la hmm. assurance 60 places la dama ne bus yi ki ka moom gisul amul contentement ki kay dawal amul contentement ka ci dugg amul contentement xam nga tax moo la ko da ngay gis benn bus boo xam ne bii karo yi dina ci jël ma 3 tonnes def ko ci suufu banc yi bokkul ak ci di de waaw ba pare jëlu ma deux tonnes trois tonnes teg ci kaw munta ne borom oto ba du yàgg gisul tus mu jëlu ma trois cent mille def ko argent euh, pour tali bi lépp jeex tag la nga def ay coxeur jël ko chauffeur bi dawale sagom muy jayi jayi te mënul sànni oto bi muy jayi jayi chauffeur boobu bu sañoon dawal oto bu watu nga xam ne kay voyage ab saak dong la yore muy jàmmam moom hmm. xam nga pneu yi ñuy wax naa hmm. pneu bu naa hmm. dama ne oto bu war a yeb 10 tonnes. Hmm. boo ko tegee 50 tonnes. pneu bi gën a baax ci pneu boo ko jox tamit dina toj. mënut a ne te bi jógee Grand Yoff baa mu jógee euh, Petersen. Hmm. di dem Fuuta def gratte hmm. ñaata at kan la ñuy romb yow la ñuy romb ak man la ñuy romb. ñoo ñu romb ñoo ko d'accord ñoo ko daganaloon. jombul na bu ñu fa ñu araamal mais porte bagage bu euh, deñee ci woto. Euh, man mi war a yóbbu bagage nag ca euh, ca dëkk ba. fu mais fu demee ni Joof yor. <laughs> waaw mais xam nga xam nga xam nga xam nga nit ñu xam. da ngay luy bagage rek dama ne. <laughs> nit ñi tamit il ñu xam ne. <laughs> dina doon ñaari da bëgg lii vouloir une chose et son contraire mënul nekk. ça c'est vrai waaw waaw surtout. dama ne foo mënti dem. da ngay gis bagage groupé même en Europe. da ngay am conteneur da ngay yow da ngay nekk ci ci ruq hmm. am fa nangam ak nangam mu dul hmm, dara hmm, nga am fa nangam nangam kii am fa nangam nangam ñu dajale ko ba mu nekk nangam ñu indi ko boo ñëwee kenn ku la gëstu yëpp def ci conteneur léegi nag am na ñu fa wax lu am solo camion yi tamit nañu bàyyi di yeb nit juus na bàyyi yeb bagage camion ne bàyyi yeb nit L200 yi nekk ci àll bi di def transport mais du du dégg du oto bu ñu déggee transport nañ bàyyi transport na commun yi liggéey seen liggéey war gaynde yii ak yeneen xeet yoo xam ne amuñu licence nañ génn seen loxo ci transport seeni borom jël ko camion yi nañ yokk seen tarif fret bi neen dañ koy taxaw nu mu gën a gaaw fret bi pour ñu xam tam bi nu ñu koy defee mais usines yi nga xam ne tamit dañoo war a transporter seen bagage saf kese bàyyi ko fa def lañ waroon def ñu koy def loolu tamit gouvernement wax nañ ko bi ki des moom nañ renouveler parc bi ci nu mu gën a gaawe